Babacar Touré gis naa la nga nekk nga nga nekk Walfadjri rek di duur rek Babacar Touré yaa mën a fen Babacar Touré yoo xanaa booy fen nag chaque jour ñu lay tiiñaan xanaa nga war a ndey sa gémmiñ gi ay Babacar nit day nit day ragal yàlla te nga doon gor Babacar yow doonoo ndey doonoo gor xanaa Babacar Touré yow amoo ndey rakk bu jigéen Babacar Touré nga nekk ndey ci Facebook ci YouTube bi am aji saar nangul aji saar yow képp rek ñu dégg ngay wax ci aji saar yow dong war ngaa rus sa am gàcce ci doomu deru doomu jàmbur bi nga nekk di ci wutee xaalis parce que boo ko tuddul rek waa waa Pastef duñ la mën a financer doo mën a am xaalis gars yi duñ la may xaalis gars yi duñ seetaan sa YouTube léegi kon aji saar nga bëgg businessé te maître mi ngay wax maître moo gën ci avocat yi ndax day def day fekk fu amul dara mu jéem faa def dara di défendre ay nit ñu tedd di défendre ay nit ñu baax yow maître moo gën sa nday palmarès Euh, Babacar ture yow yaa war a ndeyi noppi te bàyyi deru ndey jàmbur bi ngay yàq Adji Sarr raq la Adji Sarr doom la Adji Sarr daa am ay daa ay ay ay ay ay mag ak ay rak nga nekk ndeyam deram bi di yàq kon Sénégal kenn amatul droit léegi dem porté ji plainte nit ku taxaw ndeyi porté plainte yéen ngeen bëgg koo indil ay benka ñenke yow ba Babacar Touré chaque jour da bëgg a xam ci Adji Sarr lu mu nekk bakki doo ko xam parce que bëgg nga di wax ci Adji Sarr nit ñi di la delloo réponse Babacar Touré loolu doo ko mës a gis Babacar Touré loolu doo ko mës mës a gis rek leen ay nit ku nit ku Babacar Touré na der bu na der na na deret bu baax daw ndey sa yaram parce que nit ki ngay waxal tontu la saa yoo jugee wax ki nit ki ka mu joteel kooku waxul ba tey yow yaay ubbi nday sa yaay ubbi sa gémmiñ gi gi tontu kon yow yaay tontul nit kooku yow Babacar ture yow normalement heure bi dañoo waroon daat sa ndey sa kaso bi parce que nga bàyyi nday doomu jàmbur bi yéen amee da ngeen nit ñi quoi ci ay coin aji saar chaque nga téye nday toom taxaw toog wal wal wal fajiri nday duul kat yooyu télé yooyu nga xam ne ay ay ay ay théâtre kat ay comédien ay fenkat ak duul nga nekk nday ci télé boobu bëgg amee da nit ñi chaque jour si deretu aji bi chaque jour yaa ngi lekk aji saar yow yow boo doon yow jeexal nga aji bu yàgg yow Babacar Touré Babacar aji saar du sa nawle wutil nawle yow nga xam ne ci duul ngay tedd ci ak ci kàcc ak ci fen nit bu demee bay kàcc bay duul ci duul ci ci nga ciy tedd ngay yàq di lekk deru jàmbur gi saa su ne foo toll di wax ci Adji Sarr Adji Sarr seen joteeg kenn ki mu joteel ba tey moom ŋaawu ŋaaŋaantul wallaay ba bis boo leen demee bis bu la si boo ba la ba ba Ousmane Sonko taxaw ak Adji set seen ba devant le barreau wallaay yuuxu dina jub foo ko foogeewul yaa ngi tëmb rek di wax yaa ngi dajale rek yaa ngi carbonara rek di wax lu la neex di sarsarale mais billaay wallaay tàllaay yow yaa nara bokk xam nga yow gàcc gi gàcc bu lay yoot boo ko xamoon yow baabu ko ture li lay yoot bis boo ko xamoon bis boo affaire bi taxawee yow yaa nara a ëpp sa gémmiñ gi dootoo wax xanaa boobaa da nga tuxu dem fa say maam fi nga wax say maam foofu nga demoon di jéem a liggéey Adji Sarr foofu nga demoon di jéem a liggéey Adji Sarr ci affaire projet bi xanaa di nga fa dellu suñ la invité amoo nday argument suñ la invité wax ci Sénégal aji deru aji saar bi nga mën a lekk bind na nga ci nday léebul pour mbëgg a laal du la ko baax ba yolmal xiyaam biir bàmmeel sax dañ la koy xisaab parce que yàq ci nekk ci deru daam yow indil nga aji saar doom indil ko lépp boobu ba tey kenn gisul dara kenn gisul benn doom nga nekk ndeyu wal fajar yi du duur ak a dajale ragalal yàlla ci li ngay def adduna bi day jeex de te bisa ngi ñëw li ngay dund mënoo koo dundaat te bisa ngi ñëw dañ lay teg ci jaag suul la bu la ko dërëm jaralee ndax sa bopp bu ñàpp sa bopp ma la du ma kii sa bopp ndayam bii ah mun na la xoolal sa bopp ndayam bi bu ko xoolee rek xam ni bopp baadoola la ak bopp nday intérêt yow waa Pastef li lay jox ci weccet moo tax nga bëgg a sonal askan bi quoi léegi moo tax nga bëgg a sonal gan gi moo munoo ci dara booy aji faar danga koy xool sénégalais kon Ousmane Sonko te am na lu ko metti teg nañ ko bu kon booy kaso bi ne ñëpp génn Macky Sall kon daa war a génn kaso bi ñu nekk ci kaso bi xoolal ñëpp na Macky Sall war a génn parce que lan mooy ndey mooy Ousmane Sonko mi nekk fii di taxawaalu ci ay taxawaalu boo xam bul comprendre ba pare yéen ngeen nekk ndey si deru Adji Sarr bi nekk di ci wax ñaawteeg bu doon seen ndey seen doom doo leen wax loolu yow Babacar Touré Babacar Touré rek leen sa pecc li ngay duul da mel ne ku la vaccin na ndey ci ay duul bàyyi sa duul yi xale bi jigéen bi ngay sosal saa su ne te defu la dara waxu la defu la jotewul ak yow dara ki mu jotee moo ki bii la xam nga lu ma nar a metti non Babacar Touré boo xamoon li ñu xam bakkee borom Touba bis boo xamoon li ñu xam Babacar Touré wallahi azim di nga ub nday sa gémmin gi parce que boo xamoon li ñu xam boo xamoon li ñu xam Babacar Touré bakki sëriñ Touba ñoo la gën a ñeme li ñuy xam xamoo nday xaaj ba te dangaa war a nday régler chaque jour da nga bëgg gaay di la nandal di la génn di la tontu di la nandal saa yoo waxee si aci fa duur rek ngay def ana doom ba ana doom ba yow fii la la François Hélène di la woo naan la wan ma doomu aji saar bi wan ma doomu aji saar bi yow Babacar Touré wan ma doomu aji saar bi boobu ba tey yow mënoo wax wan doomu aji saar boobu ba tey Babacar Touré yow mënoo ñoo wan doomu aji saar boobu ba tey mënoo ñoo wan doomu aji saar yow loolu premier duur ba nga ne am na jëkkër ba am ñaata doom ku ko amal doom sax fee la dëkk fenal nit ki ëllëg yolmal xiyaam danga koy layoog sa boroom bàyyi leen ñeme ñeme yàlla gi ngeen ñeme yàlla ngir dërëm ngir intérêt ndayi personnel Sénégal taxul a jug de Sénégal taxul a jug duul nga fi duul fi salon beauté duul nga fi Adji Sarr am nga doom génn na Adji Sarr daa tëb planté tëb dee tëb damm yow Adji xanaa du nit wax ngeen yow boo doon dëmm jeexal nga Adji Sarr bu yàgg waaye booy fi Adji Sarr daa wex xat mënoo ko ndayi lekk bàyyi doomu jàmbur bii te nga xam te nga lii la war na nga def ko sa digganteeg borom te ngay seet li ngay wax sa yàlla parce que yow nit warulaa jàll nga toog ndeyam si Walfadjri télé naafékk yooyu télé nga xam ne télé dulkat yooyu nga toog di di yàq deru ah benn xale bu jigéen ko sa sœur nga taxaw di wax n'importe kii ab doomu raam nga quoi yow yeewuwoo amoo xel dootoo xalaat doo xalaat dara sa livre pare naa ah? livre pare na te lañ nar a démonter ndey yi lépp ci livre bi boo bis bu livre bi wàccee di nga mere ku la ndey yi deful dara parce que dinañ démonter sa ndey A ba Z yow Babacar Touré Babacar Touré man mii maay bind ndey sa ndey livre wolof bu ma paree ndeyam si dem milieu ba Babacar Touré yaa ci dàq duul yaa Pape Alé Niang yéen ci dàq duul dàq fen ak saar mi ngeen jël nag bëgg ko def benn mos feborikaay wala laytaay yooyu di ko jéem a bara booy sénégalais la kon nday kon ngeen doonee nday sénégalais di ngeen bàyyi jàmbur ci nii wala ci naa wala xoolal loolu leen kupp ñu baatare ndeyam bàyyi leen doomu jàmbur bi ngeen teg boomu jàmbur bi rek bëgg koo lekk bëgg koo warax yow li ngay wax seet ci yàlla da ngay dangaa duul ba askanu Sénégal xam ne duul yow xoolal même ñi ngay jàppale sax xam nañ yow Babacar Touré duulkat nga